ma mooy ko sakkan ki li ko sama maam Cheikhul Khadim wax. ni ko wa rafahnaahu makaanan aliyyan ak wa rafahnaa laka zikraka ku bëgg a ko. ku bëgg a wa ko waaw bu ci nekk da koy bind 1111. wa rafahnaahu. makaanan aliyyan wa rafahnaa. wa laka zikraka waaw léegi ñaar yooyu leer. waaw yoo xamante ne nii da koo mën lool. waaye mais sëñ bi yooyu tamit yor nga ko. ah laa ilaha illallah maanaam fi ne maanaam ni ni ma yàlla dimbalee ma mokkal ci salaatu ala nabi lu lu mu doon mokkal naa ci junni. waaw. Uh, ak yeneen ak yeneen asraar li ma ci xam bari na maa ngi ciy sant yàlla. waaw ni ma bu ma noonu ci bayre rek da ngay jàpp ni bayre rek laa mën. mais sëñ bi dimbaluñ ci bayre parce que am na ñoo xam ne bayree tax ñuy ñu yëkk daanu jóge ci kaw daanu ci suuf pour ñu leen di tudd am na ñoo xam ne bayree tax ñu filmer seen bopp pour wax lu garaaw pour ñu tëj leen pour am bayre bayre am na façon ñu ne bëgg nañ am na ñoo xam ne bayre la bëgg pour am wërsëg bayre la bëgg pour àdduna xam leen ñii bayre la bëgg pour mbir ma ñuy ne mbaa commerce ba ñuy def mbaa ak lu ñu mën a def mais bayre njaayit yooyu yëpp am na léegi allahuma Rafi Abdurajab Wadudu Wadudu waaw boo ko xoolee 1782 la jàpp 1782 mooy 27 allahu 66 multiplié par par par 27 mooy 1782 am na turu yàlla tamit bu mu jàpp muy ajj xaylalun am na ñu boole ajj xaylalun sam xasun sax sax sarafat xiisun mhm. fi ne nii bu fekkee ne yaa ngi liggéey allahuma salli ala sayyidina muhammad rafihu darajat waduudu sunu borom dana la may bayre boo xamante ne nii dana jaaxal adduna te 1782 nga koy liggéey bu dee ci bayre ba tey ji mën ngaa bind zuyi na li naas xubbu saxawaati ah. wala am na am na ñu koy bind 7000 am na ñu koy bind 7777 am na ñu koy bind 7 am na ñu koy bind 92 am na ñu koy bind 99 yooyu yëpp boo jël baax na mais am na loo boole euh, zuyi na da nga koy booleeg parfum parfum kaafeen kaaf su nga fu or su nga fu xaalis ak suufu jumaa suufu marché waaw bu ko defee boo ko dee sangoo moom par force da ngay am bayre bayre moo gën a yomb daa fi ne bayre bu am na bayre sax bayre bu sax am na xam ne mhm. dañuy am bayre un an bayre ba fay kaay ma la am na deux ans am na boo ah. xamante ni nii kay mën naa la ko boo ko sangoo tey bayre bu toog nag a yokk boo sangoo tey tey tey tey waaw nit ñi commencé laa dégg te fi ne nii maanaam gis nga turu iblis <laughs> alaaji papa suñu borom lu mu bind rek lu nekk am na njëriñ na iblis fi al li alxuraan di di kawe kawe kawe boo ci génnee baatu iblis dara dootu ci des doo maana uh, day manqué léegi fi ne iblis moom boo jëloon tey ji nga bind yaa iblis yaa iblis yaa iblis nga bind ko 1111 waaw imaginer rek li ma lay wax ni la lu lu maanaam loolu yëpp dama koy wax rek ngir nga xam ni zulmaani yu dafa am xam naa ko nuuraani yu xam naa ko fi boo bindee yaa iblisu junni yoon nga def ko ci njaq lu bees nga def ci yii doomu aadama di soxla ay dugub ay warga ay ceeb ay suukar ay xorom yooyu yëpp nga jël ko suul ko ci mbalit ba mu mat juróom-ñetti fan nga jël ko nga sangoo ko bayre moom yaa koy ëpp ci adduna moom ak noo ko mën a amee di nga am bayre waaye bu dee bayre bi nga xamante ne nii maanaam ñi seen xol sell ñooy gisante di bëggante nga xamante ne benn naafeq du la bëgg salaat bayre boobu baax na salaatu ala nabi moom waaye nag mais sëñ bayre nag xam nga ñu lay rek amoo xaalis tamit wax yàlla waaw waaye ne fi ne bayre nag ah fi ne sangatu bayre am na sangatu xaalis am na waaw turu yàlla yuy joxe xaalis am na am na li ñu naan kimya u saxaada du du ay caaxaan maanaam du loo xamante ne nii da nga koy wax rek nii ci nit ñi di ko dégg wala ki am na bay am na saafara yoo xam boo ko sangoo day am xaalis par force nga nekkee woon day dañ day dañ day dañ fi ne boo mënee boo mënoon a jël zuyina li naas jox naa la nga bind ko 70 waaw la xalqu samaawaati wal ard akbaru min xalqi naas walaakina aksara naas laa nga bind ko 70 nga boole ko ndoxum taw ndoxum géej ndoxu robinet ak ndoxum teen ba pare di di di ko sangoo barke Cheikhul Khadim sunu borom dana la ubbi ubbi goo xamante ni dana la jox naa la ci ndigal mën naa koo def ko defal ko ku la neex waaw ndax loolu yëpp maanaam njariñ la loo xamante ne jaam ñëpp ko mën a jëriñoo mais am na yoo xamante ne man fi ne am na benn sangat goo xamante ne juróom fukki million taxul ma defal ko ni mais fi ne boo ko bindee ndax lu boo ko doon bind fi ne lu mu nga jël ñaari weer wala ñetti weer mu doog a pare waaye boo ko xasee ba songoo dootoo wuti ñaari weer wala ñetti weer di nga toog ko bind pour mu pour waaye boo ko xasee ba ba ba sangoo ko lépp loo dootoo wuti dara lépp lay fekk si dangay dem ba jàpp ba nit ñi jàpp ni yow da ngay ruxus wala dara te fekk ne sunu borom mooy tàggat xéewal yi muy muy ñëw te lépp alxuraan la amul lenn lu génn alxuraan am amul amul lenn lu génn rasulullahi daal mooy ko sakkan moom mooy ko sakkan ki li ko sama maam Cheikhul Khadim wax ni ko wa rafaxnaahu makkaanan ak wa rafaxnaa laka zikraka ku bëgg a yëkkati ko bëgg a yëkkati ko waaw bu ci nekk da nga koy bind 1111 wa rafaxnaahu war a fax na war a la ko zikra waaw léegi ñaar yooyu leer na boo ko bindee boo ko bindee benn bu ci nekk mille cent onze boole ceek parfum yu neex yu amul alcool waaw nga nga nga nga nga nga nga nga koy sangoo fu bu dee kaw terrasse wala booy sangu nga taxaw ci ci banc bu kawe waaw maanaam da ngay jóg rek da ngay jóg da ngay jóg rek ku la bëgg a detteel mooy detteel mooy detteelu allahu akbar fi ne fi ne isa waqaxatil waaqixa bii waaw waaw maanam lu lu kéemaane la ndax am na turam sax woo xamante ne nii euh, li muy jàpp ak li muy boo ko dee liggéey. Mhm. maanaam wërsëg dana la yomba yomba yomb ba am na ki ku ma ko mës a jox benn at mu jékki-jékki woo ma fajar ni ma diw mu ne ma ah mu ne ma man dey damaa jàpp ni yàlla daa taxañ sama wërsëg war ma koo jox fi ne nii. ndax ndax li muy ñëwee est-ce que du damay damay faatu ma ne ko déedéet yàlla sunu borom mooy def noonu buy dot buy sotti euh, sama pan fees na du tax mu arrêté. sama pan fees na. yàlla du tax mu arrêté muy muy tur woowu asmara xaxasara say si dara zara siisin lu garaaw la maanaam turu turu isa waqaati la fi ne waaqe boo ko bindee aaya bu nekk nga def ci inna haza la rizquna ma lahu min nafadin nga boole ko laj ko lañ moom it di ko sangoo da lay ubbi bu la neexee nga bind waaqe nga bind aaya bu nekk nga def ci wajaxaltu lahu maalan mamduudan moom it moom day ubbi waate bu la neexee nga bind waa waaqe aaya bu ci nekk nga dugal ci rabbana iftax baynana wa bayna xawmina bil xaqi wa anta xayrul fatihin da lay bu la neexee waaqi aaya bu ci nekk nga bind ci wa in tastaftihu fat jaamul faxat jaa akumul fat mhm. nga nga o ko sangoo suñu borom da lay ubbi maanaam fi ne yooyu moo wax ci waaqi yëpp bu la neexee nga boole yëpp bind ko naa waaqi uh, uh, uh, waftax lanaa kulla baamin kunta faatihu li saalihiina minal xayraati yàlla waaqi zuyina xa alam nasara waaqixa diggante aaya bu nekk inna haza la rizquna waaqixa diggante aaya bu nekk wa jaxaltu lahu maalan mamdudan yooyu yëpp nga boole ko jël kànnaar bu bees kànnaar bu kenn mësta tëj nga jël ko bu bees nga ubbi ko def ko ci biir saafara si di ko sangoo da ngay ubbeeku par force ah, kenn kenn mun kenn mun laa kenn mun laa teree teree ubbi mais mais mais sëriñ bi yi fi daal mi ngi ci réew mi mi ngi ci alxuraan mi ngi ci alxuraan waaw fi ne fi ne li nekk ci Sénégal man fi ne dama bëggoon nit ñi ñu profité ci li ma yor ndax yàlla moom moo xam waaw waaye ñu profité ci ci ci li nga xamante ni yor naa ko ndax doyewuma ko dara. jaam ñi dimbaliwu ci. Ah, moo man nga dimbali ma ñëw. waaw léegi léegi nag bu ko defee. Ah? ñu di ko jëfandikoo bu ñu ko dee jëfandikoo rek lépp mën naa sotti fi nekkut ku tëju ku amul dara ku nekk ci place bañ faa jógee ku yóotu place bu mu mënta jot. est-ce que yaa ngi dégg kuy wut xaalis kuy wut bayre yooyu yëpp yooyu yëpp mi ngi fi mi ngi fi maanaam jarul nit ki di sonn yenn sonn yi pour mën a am loolu déedéet jaru ko. jaru ko jaru ko. lepp ngi ci salatu ala nabi mais lepp ngi ci. alquran mi ngi ci alquran mi ngi ci alquranul karim. mais sa digënté ak Cheikhul Khadim ak Serigne Bamba. Mhm. kooku aw fayam. ndax mom yaakaar budul won ak mom tay ji damay gaddu itam ba may gaddu gaddu ndënd dem di di def naka so dul nonu mhm. dimbali na ma ba ku yalla bind ñewuma la ci lasrar mhm. ku yalla bind ñewuma la ci lasrar te mom dafa doon ko xamanteni ni. bu la narta fay du la waaw su lay liggéeyloo du la wax waccal waaye du la fay mukk ba ni la jeexal naa mhm. ndax li mu wax ni nafaxa nii wa biyee yan faxul wara yàlla jariñ na ma te ci man lay jariñee ku muy ku ñuy ku ñuy ku muy xam nga ki bind ni jumlata maali wa midaadi wal xalam hadiyatan lil Moustapha baabi ni xam mais cofeelam ci rasulaay kenn xamul tollu jumlata maali waaw wa midaadi wal xalam hadiyatan lil Moustapha baabi ni xam sallallahu lépp maanaam mboolem mboolem mboolem mboolem sama alal mboolem samay doom mboolem sama wërsëg lépp def naa ko muy addiyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku kooku moo kooku kooku moo bëgg moo bëgg yonente bi waaw mahat mahabati al muxtaaru sayidina ubul mahaniya wa ahli wa ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fi daawulahu habdan hadiman muskaani li sanada mais loolu doy war fi daawul lahu waaw moo tax moom sëñ Tuubaa fi ne boo xoolee li mu ni mu ni mu def rasulillahi rek ak ni ko rasulillahi def moom moom moom maanaam preuve la waaw lu mu jox rasulillahi rek jol màkk delloo na ko nag fi ne fi ne bu dee jumlata maali wa midaadi jumlata maali lépp mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam tax fu nit gaddo lu nit gàddu indil ko ko allahu akbar wallahu yansuru wal khalqu tadbahuni fil barri wal bahri zanahin bila darar lakin ona di al hibadi ila himadi bila jële magal jote bitim rew avion yëpp yi kaaw fees moo mu bind ni li mu yasirun hasir makhtaruhu liya bila masir billahi wa allahu akbar yasaralil mu yasiron hasir makhtaruhu liya bila masir yàlla yombalal na ma lépp tagatal na ma lépp bila masir